بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين mbokk yi nu ngi sant sunu boroom subhanahu wa ta'ala noo ngi koy bàkk di ko kañ di ko jaare ci turam yu sell yi ak melokaanam yu kawe yi nga xam ne moom sunu boroom rek mooy ki ko jagoo nu ngi julli di sëlmal ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu dëkkee dotti waamem xéwal ci kaw yonent boobu ak ay saxaabaam ridwanullahi alayhim ajmain rabbana ighfir lana wa li ixwanina alladina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم mbokk jullit yi ñu ngi sant sunu borom bi mu nu defalaatee tawfiq ba ñu dellu siwaat ci ron keppaaru xam-xam di waxtaanee saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tey mooy nekk ñetteelu bind bi ci man humu saxaaba ñan ñooy saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nit ñu sell ñu baax ñooñu nit ñu dëggu ñu jub ñooñu nit ñoo xam ni dañoo jeex ci seen borom yàlla takk subhanahu wa taala ay nit yoo xam ni lépp lu nit di wutee ngërëm ngërëmal sunu borom te fekk jub na rek ñoom jiitu nañ la ca su fekkente ni loola jiitu wuñ la ca te muy lu ñuy gërëm loo sunu borom xamal ni loola baaxul ndax la kaana xayran la sabaquna ilay su ngeen bàyyee xel ñaari dars yi paase leeral nañ ay tomb yu am solo ci ñan ñooy saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi am yaakaar ni ñaari darso yooyu danañu jural ak xefeet ak gën a ubbeekuy gët xam ñan ñooy saxaaba yi xam ban gëdd lañ leen war a jox xam martaba ju kawe ju ñu am ak ni leen suñ borom gërëmee ak ñoom ñi ñu war a roy bu ñu leen xamut duñ leen mën a roy ak ñoom ñoo nekkoon taalibe yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yu jëkk ya te it nag ñoom la yàlla wax ni bu nu jubbantikoo ba mel ni ñoom tege nañ ci yoon wi waaye sunu jubbantikuwul ba melul ni ñoom nañu yëg ni lan nekk suñu yëfi boppa mbokk jullit yi saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla moo leen baaxal boppam tànnal leen boppam ñu nekk ay saxaaba comme ni ma ko waxee woon ci bind bii weesu tey nag ñetteelu bind ci man humu saxaaba ngir nit ki kat ci lay daal di amaatee yëg-yëgëb ñun ndekete saxaaba yi kat ñun ndekete xamun leen ñun ndekete saxaaba yi kat ñi ngi leen di tëkkaleeg ay nit yoo xam ne ndeke saxaaba ya dum seen moroom ñun ndeke saxaaba yi kat amut ñeneen ñoo xam ni mën nañoo fees sunuy bët bu yonent yàlla yi jàllee ñu dut ñoom ndax bu yonent yi jàllee ñoo fi gën ndekete saxaaba ya kat ñun dañoo waroon a góorgóorlu ba sunuy njaboot xam leen ndekete saxaaba ya kat déglu seen waxtaan nan doon dundee rek loolu day tooyal xol soo gaawee saalit comme ni ma ko waxoon ci bind yi weesu boo paree ci saxaaba sàngam buñ la waxee keneen da nga daal di cay génn farca ndax ñooñu suñu borom moo leen defaral boppam tànn leen ñu nekk ay saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam faatuwuñ lu dul suñu borom gërëm na leen te it ngërmande jooja mu nekk lu ñuy jàng ci téere yàlla ba yóbba yawmal qiyaam muy radiyallahu anhum wa radu an kon bindam ñetteel bi tey ñu ngi koy def ci fadailul ansaar ngëneel yi nga xam ni moom waa lansaar ñoo ko jagoo mbokk jullit yi xam ngeen ne téere yi sunna yi lu mel ne saxiixul buxaari wala saxiixu muslim wala sunan yi wala masaanid yi wala maajim yi muy kàggu yi sunna yi boo ci delloo da ngay fekk ay bunt yu ñu tuddee fadailu saxaaba nga ni li saxaaba yi am léeg-léeg ñu ni fadailul muhajirun léeg-léeg ñu ni fadailul ansaar léeg-léeg ñu ni fadailu abibakrin fadailu amar fadailu ali di ko jël par benn benn lii may wax nii ku déglu ci kàggu yu sunna yi da nga ko ci fekk su boobaa saxaaba buñ ci jël rek danañ ko indil ay ngëneel yoo xamante ni am na ko yu mu jagoo waaye ñoom waa lansaar ci boppam dañoo am seeni jagooy bopp ñoom waa muhaajirin dañoo am seeni jagooy bopp waaye saxaaba yi ala wajhilu umum tamit am seeni jagooy bopp jagoo yooyu nga xam ne ay ngëneel la suñu borom defal na leen ko mbokk julit yi loola du xaaj du jeex da nga cay wax la nga xam nuppi te la nga xamuta ëpp da nga cay wax lu bari nuppi fekk la nga bàyyee ëpp bokk na ci seeni ngëneel ñoom lansaar te suñu borom seedeel leen ko mooy yusiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa léeg-léeg kat dañuy jël njekk yéene ko seen mbokkum julit ba jiital ko ci seen bopp juuyoo xaay def wolof bi naan sama boppam a la gënal du baj naa la wax jooju wax ju yees la waxi ceeb du dëgg la loolu ku ko doon wax na ko bàyyi te xam ni wax jooju du waxi jullit sama bopp moo la moo ma la gënal du bañ naa la loolu du waxu jullit waxi ceddo la bokk na ci borom bi subhanahu wa taala li muy wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون تسورة الحشر بك جلد سن برام يعلمني والذين غايو ينغا خمني تبوأ الدار ñom ñoo dëkkee woon dëkk ba wala kër ga wala réew ma wal imaana ngëm yàlla ko saf saf fekk jiit na ci seeni xol ndax gëmee nañ yonent bi ca makka ca bayatul aqabati al ula ca bayatul aqabati thaniya ak ya dox ca diggante ba ak ya ca topp wal imaana ngëm yàlla gi fees dell ci seeni xol li li li li suuxat xoli waa makka moom moo suuxat seeni xol ñoom waa madina sunu borom ni yuhibbuuna man haajara ilayhim ñoom kat nag dañoo amoon fierté dañoo amoon bëgg-bëgg ak kontaante ci saxaaba yi leen gane si yéen a ngi fàttaliku aaya ji waxoon naa dars bi passé léeg-léeg mbir dina am fekk da ngaa ñàkk pexe léeg-léeg mbir dina am fekk sóoraale woo ko woon léeg-léeg mbir am fekk da ngay bañ boo ko defee ñu ne ah lii kat ñaaw na rafetut waaye ñii kat ay nit lañu woon yoo xam ni sunu borom moo seede xoolal keneen waxalu leen ku dul sunu borom yuhibbuuna man haajara ilayhi ñëw gi jullit ñu jóge màkka ñëw ci ñoom ñoom dañ cee kontaan wala yajiduuna fi sudurihim amuñu benn gêne xaajatam mimma uutu benn gêne amuñ ko ci seen xol yi benn añaan benn riccu benn ah ñàkk pexe amul ci fat giñ fatoon ansaar yi sunu borom mu ni wa yu'thiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa léeg-léeg sax mbir day ñëw fekk ñoom ñoo ci gën a am aajo ñu koy jox waaye dañuy préféré jox ko ñooña daal di toog te mbokk yi xam ngeen loolu dara ju juróoy réer yi mbir ñëw mu di lekk mu di naan mu di matériel mu di jumtukaay mu di yére ah mu di alal nga yëg ni yow mii kat nangam soxla nga ko yëgal ni sa mbokkum julit mii soxla nga ko nga pare pour noot sa soxlas bopp ngir faj sa soxlas mbokkum julit ah mbokk yi xam ngeen ni loolu wax koo gën a yomb jëf ko wax ko moo gën a yomb jëf ko moo tax imam ibni kathir bi mu tafsiree laaye ji ba waxee sunu borom wa man yuqa suxa nafsi fa ulaika muflixuun nay nay ak bëgge nay ak bëgge gi nekk ci bakkan ku ko sunu borom nootal ba mu dañ yow yëgal ni sa mbir baax na ibni kathir rahimahullah ci tafsiram dani ay min karamihim wa sharafi anfusihim yuhibbuna almuhajirin nee na ñoom bëgguñu woon muhajiroon yeeg lansaar yi ngir dañoo ñàkk pexe wala dañ koo sóoraal wala affaire boo ko deful mu ñaaw déedéet min karamihim ci seen tedd nga duñu tedd ah ak tabe ga wa sharafi anfusihim ak tedd goo xam ne seen bakkan ya teddoon na ko foor ci gëm yàlla mu ne yuhibbuuna almuhajirin loolu taxoon ñu bëgg muhajiroon yi kontaan ci ñoom ndax ñii gën a yonent bi lañ rek doy na mbégte ci dalal leen mu tekki ni wa yuwaasuunahum bi amwaalihim nee na dañ leen doon pee di leen jox di leen sédd ci seen alal yi mu ne walaa yajiduuna fi sudurihim xaajatan mimma uutu mu ne ay laa yajiduuna fi anfusihim xasadan lil muhajirin fi ma faddalahum allah bihi min al manzilati wa sharaf te mbokk yi lu am solo ngo amuñu woon benn añaanante ci seen biir malgré seeni daraja tolloo wut tomb bii de mbokk yi tomb la bopp bu ñu mënoon a am waxtu wu yaatu am ci ay waqafaat dana am solo trop ndax loolu mooy jubluwaay darsi yi xam ngeen ni mbokk jullit yi sunu borom moo bind te tolloolewut ci alal ci xam-xam ci kattan muy physique doole ci xel mu rafet ci xel mu ñaw ah ci wér wér wéradi yépp sunu borom tolloo moo tax mu wax ci suratul isra undur kayfa faddalna baadahum ala baadin xoolal rek kéemaanu yàlla gi ñu ne ko gan muy ni yàlla ëppalante leen nit ñi diw ëppale diw xam-xam diw ëppale diw alal diw ëppale diw am xel kii moom xel mi moom macha allah moo gën a ñëw fit kee moom moom kattan gi ko suñu borom may ci jëm physiquement kenn ku ca nekk suñu borom ñu xoolal rek nga ne li kii moo la ëppale iman kii moo la raw ci alquran kii mokkal na ko yow mokkaloo ko suñu borom ñu xoolal ni ma séddale yëf yi rek te it loo ci xamul wooyu wala al axiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila gis nga bu ngeen ñëwee alaxira ëppalante gi suñu borom mu ni fële la gën a rawantee rawante gi ni mu amantee fii suñu borom mu ni fële la ëppee foofu mbokk jullit yi ñu xam ne suñu borom moo séddale te tollawul ibni kathir bi tafsir aaji dafa wax ci am solo mbokk yi mu ni kenn du añaanee sa morom martaba ji ko suñu borom jox ak am solo mbokk yi nun mbokk yi ñun dañuy fàtte ni xalima ja doon bind yëpp yi kenn ku ne su fekkonte ni sa borom dalaa jox sa xalima si bopp ni la bindal dëgg la nit day foog nit yàlla lim bind moom loolooy li baax ndax lu mu def rek loolooy li baax waaye jàpp naa ni kun ci joxoon sa xalima yow jàpp nga ni nangam ji moom bëggoon naa ko cee dolli gis nga képp xalima dañ doon bindee jëf yi képp kun joxoon sa xalima ni la bindalal sa bopp lii dogal yow sa sa parcours fi nga war a jaar sa nangam yaakaar naa ni ku ne ci ñun di nga am loo dolli ndax jàpp ngay loolaay li baax fekk li baax mooy li yàlla def ñaareel bi mooy gis nga ëppalante gii am ci nit ñi bàyyi ko noonu loolu moo neex yàlla yaa xi kii moo la ëpp doole ci wàllu jëmm ci wàllu yaram moo la gën a wér noonu la ko yàlla bëggee ndax yàlla bi ñu koy def xam na li muy def moom subhanahu wa taala nga ñëw ci wàllu alal mooy àddina nga gis ni kii li mu am yow amoo ko loolu yàlla la neex moo ko sédde noonu kër këre til til tax ta bari ne yaa caaral ak yoo njox taxut nga ñàkk dafa am loxol ni ca gannaaw di bitar ñeef yi kooku mooy loxol qudra yadul qudra mooy kàttan ak sunu borom qasama rizqa ala ahdalil kayfiyaati walam yansa ahadan moo séddale wërsëg ci anam yi gën a maandu nag te fàttewut kenn ku ne jot sa wàll da nga naan kay yaakaar naa ne lii doyuma te fekk lu mu sédd loolaa doy soo ñëwee ci wàllu xam-xam da ngay gis koo xam ni sunu borom da ko bopp bi dafa fees dell dell foo ko fekk mi ngi tar yi dem rek daanaka lépp da koo mokkal du xool sax booy loolu yàlla la neex subhanahu wa taala ndax yàlla mënoon na koy dindi ci moom may ko keneen gis nga yooyu mbokk yi moom ba ci wàllu diine da nga gis koo xamante ni yow xam nga ni kii moo la ëpp iman loolu seet daf yàlla la moo tax yàlla dañu am lu muy tere nag wala tatamannaw ma faddala allahu bihi baadakum ala baad gis nga loolu su yàggee day jural nit ki iñaan gis nga bunt bii soo gisee ma ne war nañ ci am ay waqafaat mooy dañ ciy rëccale te duñ ko yëg léegi la da nga nekk nit moo am lu mu la ëppalee ci lu mu mën a doon ci fànn yi ma tudd ak yi ma tudd seytaane leen day ñëw ci sa xel naan la ah diw moom wax dëgg yàlla lii de moom li mu am nii moom moom ah maanaam au lieu que nga ñaanal ko yàlla barkeel te nga am lu ni mel te loolu mooy sunna waaye déedéet yow dafa mel ni ak iñaan da lay tàmbalee du dugg te kañaan googu mbokk yi ñaari gaaf da cay nekk gaaf gu jëkk gi mooy da lay yàqal gaaf ak ñaareel gi da nga ci am bàkkaar yàqal gi mooy la wax cab danox ma aadal al xasad man daal jikko yi xool naa xool gisuma jikko bu gën a maandu kañaan ñu ni ko lu tax mu ni bada abi saaxibihi fa qatala iñaan ba mu déparé ka ko doon def la njëkk ni tarrum talaata mu daanu mu doog a jàll ca kam ko doon def loolu mooy lan mooy li yàlla def ba nëpp booy toog di ko añaan yaa koy misère yow lay naqar yëf yi gën a avancé te doo ci man dara bi ci des mooy añaan day lekk say jaamu yàlla comme ni sawar di lekkee mat beneen bi ci des mooy añaan day waral doo mën a gisal nit ki lu baax beneen bi añaan day waral nga di ko misère ci sa xol lan nga war a def ah diw kat yëfam yi moom yàlla na ko suñu borom barkeelal waaye ay waay yéene ko ko mbokk yi ñun nan natt suñu bopp ci loolu nan natt suñu bopp ci lii kenn ku ci nekk ci ñun ku ne am na loo ëppalee sa morom ku nekk ci ñun na xool li la li ko diw ëppalee est-ce que yow dëgg dëgg dëgg dëgg li la diw ëppalee yéene nga ko ko foofu mooy sual bu njëkk bi est-ce que yow mii tey bu loolu bu ko ci catastrophe daloon yow da nga ciy kontaan wala da nga ciy am tiis comme moom na mu ciy amee tiis loolu mooy ñaareelu sual bi ñetteel bi mooy est-ce que yow yaa ngi koy ñaanal yàlla barkeel ko ñeenteelu sual bi mooy tey jii est ce que yow loola su fekkonte ne dafa dañ ca moom da nga yëg mbégte wala da nga yëg tiis moo tax sunu borom mu ni ibni kathir mu ni ah kenn du añaanee sa morom nag gis ngeen iblis mbokk yi añaan moo ko yàqaloon iblis mu moo jiitu aadam iblis mu jiitu aadam jaamu yàlla façon jaamu yàlla gu nekk bañ yëkkati ko ci malaaka yu kawe illa iblis kaana min al jinni fa fasaxaana bi rabbi borom boole ko ca malaaka ya usjudu li aadama sujjóota leen aadama rek mu xool ko ba ca barki démboo njaay ga fi woon mbokk yi ñun ci ñun ñu ci nekk barki démboo njaay lañu woon ñaata ci nit yow ñaata ngay judd ci dëkk bi sawaay bi ngay judd nii nga def indi woo dara fekk ci ay paa ñu leew la tudd paa yooyu nga dem ba mën leen a dundal ñoom ñëpp loolu yàlla moo koy dogalee noonu ñaata nit ñoo fiy judd ci sa kanam nga jàngal leen sax alifun baun taaw ñu dem ba raw la fa mën laa jàngal loolu yàlla moo ko dogal liir biñ taaw mu dem ba mën laa te taawuwaat yow mi ko doon taaw yàlla moo ko dogal mbokk yi est ce que bunt boobu ñun ñu ngi ciy xalaat dëgg-dëgg léeg-léeg dañ ciy feebar te duñ ko yëg waaye ansaar yeeg muhaajiruun yi lu xewoon laa shakka ni am nañu dox duñ dabante de yàlla mu ni laa yastawi minkum man anfaqa min qabli alfatxi wa qaatal sa yeboo ngeen xam ni avant ñu def suluxul xudaybiya ñi génne woon seen alal dépensé ko ci yoonu yàlla xeex ci yoonu yàlla ñooñu moom duñ yem ak ñeneen ñu dul ñoom ulaayka aadamu daraja ñoo ñuy ëppale ay darajaat kay waaye nag yéen ñëpp a baax wa kulla waada allahu alxusna mooy yéen ñëpp baax ngeen loolu moo lay wan ni kon nit ñi bay suñu borom sàkkee addina ba tey duñ mas a tolloo saxaaba yi ci seen biir dañoo ëppalante ay daraja moo tax kon ëppalante googu mbokk julit yi kenn ku ci nekk da koy xool xam ni sa mbokkum julit la la war ci wàllu yar mooy nga yéene ko lam am waaye feebar bare bare bari mbokk yi dal nañu de am na ci ñun ñoo xam ni wala yaasubillah bu ñu toogaatoon ñu nafaraat xoolaat suñu bopp danañ gis ni lii feebar nañ ci de feebar nañ ci de nit ki lim am nga yéene ko ko ñaata yoon nga sujjóot ñaata yoon nga mas a sujjóot di ñaanal yàlla yow sunu borom diw alalam ji yàlla na ko ko sàmmal waay ñaata yoon nga mës a sujjóot ah yow yi sunu borom borom xam-xam bii de wala diw sàngam mii de alxuraan ji mokkal moom yàlla na nga ko sàmmal ba mu ko mës a fàtte ñaata yoon nga mës a sujjóot benn waay boo xamante nii moom ni ko yàlla may ci xel mu ñaw nga ne ah sunu borom kii de yàlla bu ko cat jàpp yàlla bu ko gémmiñ jàpp yàlla bu ko bët jàpp ñaata yoon nga mës a sujjóot nga diw kat physique ni ko yàlla may ci wàllu kattan yàlla na yàlla sàmm ko ñaata yoon nga ko mës a def nga xam ne moom kenn sàkkoo ko amul yaa xiib ba fàtte ci ñaan bi imam Saafi ay nee na mbokko mbokko gi su fekkee mi ngi yem ci balaa ngaa ñaanal sa mbokk mun la yaa xiib bu yem nga ñaan bu yem yaa xiib jëgg dindi ko du dëgg nee na sa mbokkum julit su fekkee sa mbokkoog moom fi mu yem mooy balaa nga koo ñaanal mu ne la yaa axi nang ma ñaanal bul ma fàtte ci ñaan mu ne yaa axi ji dindi ko te nga xam ne nekkatul dëgg sa mbokkum julit muy da ngay wéet di ko ñaanal te fekk sàkku ko ci yow kan ci ñun mooy def loolu kon loolu wax dëgg yàlla ab tomb la boo xam ni bu jaroon a taxaw taxaw bu yàgg lan la ñuy ëppalante min al manzila ay place yàlla moo koy séddee tey bu doon ab borom xam-xam amaana diw moo la ko gën a jege bu doon président la ñu ne diw moo la ko gën a jege su fekkonte ni amaan na ci ci wàllu nangam la ñu ne diw kan moom yàlla lam ko ca may mayu ko ci ñu ci kenn ku ci nekk nag da nga jël say bët xool loo war a xool waaye ku ne am na la yàlla lu may lu mayu sa morom wa taqdimi fi dikr wa rutba njëkk a dugg ci sunna njëkk a dugg ci lislaam ëppale xam-xam njëkk laa dal alquran yooyu yëpp ay martaba la yoo xam sunu borom da koy ëppalante lee ci àddina ak ci àllaaxira imaamul qurtubi mufassir bu mag la moom it nee na al itaar soo déggee itaar dëgg mu ne huwa taqdimu lgayri ala nafsi wa xuzuziha addunyawiya nee na affaire baa ngi nii tege mu wóor la ni mook cërëb àddina mu wóor la ni yow am nga ci soxla sa mbokkum jullit mii am na ci soxla nga bëreeg sa bakkan bi ba xot ko toog ci kawam ni ko lii moom diw laa ko gën a yéen ndax yow mën nga kaa muñ te wóorul ba xam diw mën na koo muñam déet ni loolu mooy itaar mooy soxla nga ko diw soxla na ko te yaa ko moom yow mi ko moom na nga not sa bakkan jox ko keneen te fekk ibtigaa mardatillah nee na wa zalika yanshau an quwati al yaqin nag nee na loolu nag yëgal ni yaqin ju mat dëgg wóolu yàlla gu mat sëkk moo koy may nit xaw ma yéen a ngi fàttali comme déet bu ngeen fàttee du aay ndax comme yàgg na manasilu saairina ila allah bañ ko fi defee woon am na manzila bu ñu tuddee manzilatul yaqin wóolu yàlla nga xam ni manasil yooyu nga xam ne moom ibn ibn ibn ibn al qayyim tudd ci mana madarij salikin ah ah manzilatul yaqaza manzilatul basira ah manzilatul fikra manzilatul tawba noonu nga koy def manazil yi jékki-jékkam yàgg rek sa xel mi commencé ubbeeku ngay xalaat nga jékki-jékkam yàgg rek sa bët yi daal di sànni vision bu leer nga commencé gis njub te ku nekk gindeeku ci ñun foofu nga jaar da ngaa jékki-jékki rek xel mi toq commencé xalaat nga am yoo daawul xalaat léegi yaa ngi koy xalaat am gis-gis bu leer amoo ko woon mu mel na nga nekkoon ci ay nelaw ñu yeela nga yeewu ba nga déparé rek la nga jëkk a def rek mooy manzilatu tawba ngay jëkk a song mooy tuub te mooy awwalul manazil wa axiruha mooy manzila bu jëkk bi te moom ngay mujje noonu ngay dem ba agsi ci manzila bu ñuy tuddee manzilatul yaqin mooy wóolu yàlla dëgg-dëgg wóolu sama mbokkum jurit mi lii su ma ko ko joxee yàlla mën na imam ibn al-jawzi xama ibn al-jawzi wala ibn zahabi kenn ci ñoom moo nekk li xissa bi may bëgg a wax benn waay dafa ñàkk ba ñàkk gi jéggi dayam nee na mu génn biir këram yore aw jën nee na mi ngi yàkkamtee egg ci këram ndax xale yaa ngi xiif soxna saa ngi xiif kooku xam ngeen ni soxla na ko rek dëgg dëgg bu ko yóbboon doon bàkkaar nee na mu dajeeg benn jigéen jigéen jaa ngi yore ñaari xale tuut tànk ay jilim nee na ndaw saa ngi xool sama jën wi rek fekk mi nga xam ne mi ngi jàpp ci génn jën wi jën wi lang ndamu ni ndaw saa ngi xool sama jën wi gone yaa ngi koy xool ndaw si daal di daw daw dab ko ni ko waaw ay waay jaamab yàlla gisal xanaa booba rusu sax nga rus tuut tànk yi ma yore ñii dem ba tey nekkuñu fi mu nekk nii te maa ngi sonn xaw ma fu ma jëm seen bàyyi dafa faatu ab jirim laa wax a wax a wax waa ji xool xool xool laahu akbar mu yëkkati jën wa jox ko te waa këram ak soxnaam ak moom ñi ngi xiif nee na moom problème am bu njëkk mooy bu ma yegsee léegi lan laay wax man bu ma yegsee ci kër gi léegi lu may wax soxna si nee na mu yegg si fëgg buntu kër gi dugg ndeysaan jaaxle dikkal na ko lan lay wax waaye balaa ñu koy demander ay explication ba muy expliquer rek neen dafa dégg kuy fëgg ci bunt bi dafa dégg kuy fëgg ci bunt bi daanaka daal lan ko jox ci alal keroog dafa mel ni mu ngi mel ni gëleem tukkal bu ñu jël sëf ko ba mu fees ak i bagage ak dikk ni ko ko buttal ci biir këram allahu akbar loolu mooy li yàllay wax ni képp ku joxe dara ci jëmmi sunu borom ji rek tax sunu borom dara la ko delloo kon yooyu sunu koy jàng ci dund salafu saalih ci ngay gis ni itaar gii ñuy wax dëgg la ci ñoom ibnul jawzi mi ngi nettali ci sifatu safwa benn waay boo xam ne nee na dama doon tukki ni man maa ngi jóge dëkk sàggam jëm madina nee na benn commerçant woo ma ma ñëw mu daal di ma yëkkati nangami junni ni ma soo demee madina jigéen joo gis mu gën a ñàkk rek joxal ma ko sama azaka la seetal jigéen ji gën a ñàkk la waaye xoolal mbokk yi niñ doon defee iitaar ak niñ ragalee yàlla waa ji nee na damaa ñëw ba ci dëkk bi ma dajeeg benn waay ni ko man ne dama am ko ma joxoon azaka ni ma boo dikkee ci dëkk bi seetal ki nga gis ni moo ko gën a yeyee nga jox ko bu doon ñu ne looy wax da ngay commencé melestiku ngir bëgg ñu jox la ko yow ba pare d'abord waa ji ni ko boo jàddee ci koñ bi nga jàdd fële boo demee di nga gis benn kër bu mel nangam ndaw soosu de xaw ma ku ko gën a ñàkk ci koñ bi nga jox ko alal ji nee na mu waaxu ñëw ba ci bunt bi daal di fëgg nee na benn jigéen daal di koy ubbil mu daal di yëkkati mbuus mi fekk alal ji ci mbuus la ko def mu yëkkati mbuus mi jox ko ni ko ma ne damaa jógee Madina benn commerçant moo ma jox azakaam nee na ma seetal Madina jigéen ji nga jàpp ni moo fa gën a ñàkk nga joxal ma ko ko ndaw si ni nit bay waaj a jël mu ne waaw mu ne ko ah est-ce que wóor na ni maa gën a ñàkk ci dëkk ba ma koy jël ndax su ma ko jëlee te fekk maa gën a ñàkk sa yóbbante wér na waaye su ma ko jëlee te gënuma fee ñàkk sa yóbbante wér mu ne ko duma ko jël allahu akbar mu ne ko duma ko jël te ndaw si mi ngi ñàkk ba moom ak waa këram ay fan su ma fekkee juuma ci xissa bi toog na ñetti fan lekkuñu waaye moom problème mooy comme waa ji dafa tegoon sart ci alal ji seetal ki gën a ñàkk loolu lu ci yoonal ma ni moom it ndax nee nañ ko ki gën a ñàkk kee boo ko tegtal gis na ni kii la moom na jël ci lislaam am na yenn xóotal yoo xamante ni sax islam waaye pour wan la wara du bàyyi borom mu am jàmm fegu gis nga fegu ci diine du la bàyyi nga am jàmm lu xaw a amul lënt rek moo tax xasanul basari doon wax ni dinaa xool sama bët ma gis juróomi dërëm tege naar koo jël ma ne ah lii de maa ko wax kasma mu ne samay xalaat est ce que sama gan gi waddal est ce que nangam mu ne ma bàyyi ko foofu abdullah ibni mubarak nee na bërëm bu am am lënt ma moytandiku ko moo gën ma sarxe cinq mille francs fi sabilillah wax bu araam de bu am am lënt rek nee na ma lekk ko sarxe junni fi sabilillah moo ma ko gënal kon ñoom mbokk yi seen ak tegu xool waa ji ci la jëlaatee alal bi di wër dëkk bi ba mu wëree ba àggal ñu ne ko ah ndaw sii de xamuñ ku ko fi gën a ñàkk alal ji doog a dellu siwaat ci moom mu doog koy jël kon loolu mooy itaar mooy yaa ngi sonn nga waaye tamit da ngay sóoraale ne am na ñeneen ñu sonn comme yow sunu borom subhanahu wa taala def ni kon ci aaya jooju imaamul qurtubi nee na bokk na ci ki ko man tamit tawkidul mahabba mooy feddliku ak sa bëgg gi nga bëgg sunu borom wa sabri ala al mashaqqa saa bu jafe-jafe amee nga muñ ko wa yubsiruna ala anfusihim nee na dañuy gënal seen alal yi wa manazilihim seen kër yi laa an ginan muy laa an ginan bul yaakaar nañ ko soxlaatul de soxla nañ ko de mu ni bal ma ihtiyaajihim ilayha aajowoo nañ ko lool waaye nag tàggat seen bakkan ak ñor gu leen dëmi borom bi subhanahu wa taala ñoroon moo tax ñu yeggoon fii defe naa mën nañ cee joxe benn misaal donte misaal bi baamtu na ay yoon waaye takraar bi du tee ay fawaid mën caa gën a génne Saad ibnu Rabia yaakaar naa ni ku ko xamul tamit tur wi nekkul gan ci say nopp Saad ibnu Rabia ku ko dégg ci ñun ku ko xamut tur wi du gan ci say nopp ci li ma foog moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam takke woon ak Abdurrahman ibn Awfin radiyallahu anhu wa arda Anas ibn Malik nee na Abdurrahman ibn Awfin dafa ñëw Madina yonent bi lënkale kon ak Saad ibnu Rabia xam nga yonent bi ni mu defoon mooy su fekkoon madina dañ fi am téeméeri kër muhajirun andi téeméeri borom kër borom kër gu nekk ci madina yonent bi def naan la yow de diw laa la takkale diw yaa féete woo diw féete naa la diw diw féete naa la diw takkalante leen ñoom ñëpp nee na saad ibnu rabia moom la abdourahman fekk si ndax abdourahman moo jóge màkka nee na mu ñëw ni ko dama bëgg ñu séddoo suma alal ak sama li nga xam mooy samay njaboot mu ne ko yàlla na yàlla barkeela la sa alal ak sa njaboot loolu riwaaya bu gàtt la waaye bi gën a leer ibrahim ibni saadin moo ko nettali mu jëlee ci baayam mu jëlee ci maamam nee na lamma qadimul madina bi ñu yegsee ci madina yonente bi dafa takkalante woon ay xarit diggante abdurahman ibne awf ak saad saad ibne rabia bii da caa gën a siiw waaye kenn ku ne am nga koo àndaloon nee na abdurahman ibne awf nee na inni ah saad ibne rabia ni abdurahman inni aktharul ansaari maala dëkk bi de man ku ma fi ëppale alal xaw ma mbokk yi kooku bari woon naa la madina xam ngeen du woon dëkk bu ndaw maanaam madina du woon as ndëkk soo xamante ni sum waaye da ngaa yaakaar ne juróom-ñaari kër a fa nekk wala juróom-ñett de dëgg la jamono bi yonent bi ñëw màggeewul woon comme yonent ba mu fa nekkee waaye du woon as ndëkk de mu ne ko dëkk bi ku ma fi ëpp alal xaw ma ko léegi faqsim fa aqsimu fa uqsim aqsimu maali nisfayn damaa fas yéene séddale sama alal ñaari xaaj ci misaal su fekkoonte ni capital mi ngi nekk 20 millions mu ne ko dama ko bëgg a xaaj ci digg bi 10 millions 10 millions mu ne ko waliyam raataani am naa ñaari soxna fanzur ajabahuma ilayka fa sammiha li utalliqaha allahu akbar allahu akbar qissa bii de mbokk yi maa ngi wax ni kenn kuy waxta yàlla rek tax saa boo koy nettali ba yegsi bu def jàngalekat nga wala nga koy déglu ba ñu yegsi ci su dee déglukat nga ah kenn ku ne yaa gën a xam sa bopp ñëwal ci alal ji mbokk yi xoolal alal ni mu neexee ci bakkan kenn ku nekk ci ñun ak koo mën a doon nag fi ne yaa ngi kof kofal li nga am te it kenn du la ci yedd nag ndax fii àdduna la kenn ku ci nekk ci ñun yaa ngi bëgg loo am kenn du la ci yedd ndax bu dee yiw nga ko bëggal kenn ku ci nekk ak alal taq benn waaye nee na alal boo bëggee xam nan la taqee ci borom da ngay gis nit ki rek nga yóotu ci bakkanam benn kawar rek nga koy xëcc bif kawaru kawar bakkan boo ko bifee luñ njëkk xew bët yu génn rangoñ ponkal lu ko jooyloo du caaxaan de ponkal caaxaan jooyloo ko de xoolal copp su ndaw soosu nga xëcc rek rangoñ yi génn mu ni alal noonu la mel doomit noonu la mel ci xol su fekkonte ni waa ji 10 millions mooy capital am mu ni ko damay xaaj sama alal ci digg bi ñu séddoo ko wallahi mbokk yi lii ku amul fu sab xol egg ci yàlla mënoo ko ñii tirise wuñ de ñii tappale wuñ de xam nga ñun bu doon ñu na léeg-léeg mën nga ne ah waa yaaxi kañ ko séddoo fekk affaire bi kat moom buñ ko bu ngeen ko séddoo nga jël bu ngeen ko séddoo wut rek mu gën laa arrangé fekk mbir mi yaa ngi koy wax rek waaye nag ah àggul nekkul pas-pas ci xol bi de loolu daf ñuy dal de léeg-léeg di ngay jéem sax di jéem a fexe itaar itaar lu tuuti fekk buñ la ko delloo doo am benn seen yàlla dani kii moom buñ ko ko delloo day am seen moom li mu bëgg mooy yëf yi na dem mu ne ko walim raataan am naa ñaari soxna man jàpp naa ne am naa ñaari soxna damay fase kenn ki damay fase kenn ki nga takk ko moo gën a yomb xoolal koo ci bëgg ñoom ñaar ma fase koo ñaari tolloowuñ de mbokk yi ñaari tolloowuñ de bu doon fii ci ndakaaru la moom xam nga boo gisoon benn waaye bu yore ñaari soxna moom da ngay gis ku naan xanaa ma fas soxna su mag si nga jël ko bu doon ci ndakaaru la bu doon ndakaaru la ma fas soxna su mag si nga jël ko ma bàyyi bàyyi fi ñu ndaw ju ndaw ji gis nga de waxinu nit ñi rek laay wax waxinu nit ñi rek laay wax waaye kaay tànn ñoom ñaar koo ci gën a bëgg ah mbokk yi loolu yombut de wallahi alazim yombut yàlla xam na ni yombut waxuma la dara waaye wàcc kenn sax wàcc kenn rek jox ko nga jël ki ci des loolu martaba ju kawe la dëkk bi li fi nekk ci ay jigéen bari lool nga bàyyi leen fi ñoom ñëpp di tànn di tànn ba yem ci diw andi kii am na foo foo ko teg de kooka fa nga ko teg soo ko mënee yëkkati di ko jox sa mbokkum julit ngir lan ngir ëllëg rek naam ngërëmal sunu borom kooka am na fu ko diine toll mbokk julit ji fa sammiha lii wax ma kan nga ci gën a bëgg ci ñaari soxna yi rek utalliqha ma fase ko bu iddaam jeexee fa idan qadat iddatuha fa tazawajha su iddaam jeexee takkal qaal waa ji di ko gore lool mu ne ko baarakallahu laka fi ahlika wa malik loolu mooy sunna mbokk yi sa mbokkum julit saa bu la gaaralee alal jël nga ko ak jëloo ko ñoo bokk yam ñaar yëpp ñaan bii nga ko war a ñaanal sa mbokkum julit bu la mayee wala mu gaaral la wala mu jox la wala mu bëgg laa jox bu fekkee jox na la ak même boo ko jëlul yëpp ñoo ci bokkeem lay sunna mooy ñaanal ko yàlla baarakallahu laka fi malik yal na la yàlla barkeelal sa alal wa ahlika ak sa njaboot ak am solo ak ka am solo nga di ko ñaanal sa mbokkum jullit yàlla barkeel yu bare bare bare bare ci suñuy alal yi di yàqu xam nga lu koy tax a yàqu ba teg gémmiñ parce que barke bii lañ ci dugg ñaan gis ngeen ka alquran doon nekk walaw la id daxalta jannataka qulta ma sha allahu la quwata illa billah waaje moom duggee ci tool ba suma tool bi moom moom ren ji nangu na képp waay daal di gémmiñu boppam nekk nit dina gémmiñu sax boppam ba ko waajee jubbanti dañu ko walaw la id daxalta jannataka qulta ma sha allahu la quwata illa billah bu doon wax nga lool musiba ji dal ci sa tool bi tey ba yépp yàq du la ci dal mu ni ko dee fa dulluni ala suuqil madina ayna suuqukum man dama ma dox dëgg yàlla xam naa ni yéene nga ma sa alal jëlal kii ñu jox ko xoolal jóge makka sonn amoo ñu gaaral la alal ji ñaar ñii mbokk yi kan moo ci gën a baax ki jëkk kii nee na ki jëkk waa ki jëkk baax na de waaye ki sonn ba pare ñu jox la jëloo na ki nee na ñoom ñaar ñëpp waaye ñoom ñaar ñëpp mën nañu baax waaye am na ku gën a baax al fadlu lil mutaqaddim wax dëgg la loo arab yi wax al fadlu lil mutaqaddim ay ji bañ koy tafsir yéen a ngi fàttaliku bañ koy tafsir maa ngi dem nettali xaatib arab yi buñ daan wax ni da nga tabe fii juudi xaatimin wa iqdaami antarin antar bin saddaat ni meloon ci am doole xaatib ni meloon ci am alal ak tabe bu ñëwee da ngaa tabe mel ni xaatib moom mooy yow jeexal nga jërëtul ñuy indi beneen exemple xaatib dafa gën a ji doomi bàjjenam doomi bàjjen ji daal di koy rayal am xar ci gétt gi pees ko defar res bi daggat ko lakk ko ci palaat tegal ko ko xaatib daal di ñam ci res bi mu daal di neex mu ni ah waaye lii moom moom moom nooy na waaye te neex di xale bi daal di koy dégg rek dem rey gétt ga yëpp gétt ga yëpp mu rey ko jël génne maanaam yàppoo mu teg ko fee mu jël res yi kese kese kese togg ko indi waa ji daal xaatim daa jékki-jékki rek seen palaatu res wër ay palaat mu ni waaw bàjjaamu lii nag dama bàjjan bi ni ko man kat damaa dégg nga ni lii kat neex na fu mu jóge te man sama tabe dafa yegg ci lépp lu ma xam ne sama mbokkum jullit soxal na ko ci sama alal rek ñàkk naa jooja alal allahu akbar xaatib yéemu ndax nee na moom musul woon a foog ni am na ku tabe ba mel ni moom moom xaatib ndax loolu moom xamoon na ko sax comme ni ko nit ñi xamee xam nga nu mu def dafa woo bëkk néegam ni ko demal ca giléem yi nga jëlal ma téeméer dem ca xar yi jëlal ma téeméer dem ca nag yi jëlal ma téeméer dem ca bëy yi jëlal ma téeméer ba jur gi mu am jeex bu ne téeméer téeméer téeméer mu ne ko joxal ma ko waaj léegi nag mu des nag coow li kan moo gën a xamee ñoom ñaar bi àtte bi jollee benn borom xam-xam moo ñu leen alfadlu li mutaqaddim xale bee gën a tabe xaatib ñu ne ko lu tax mu ni parce que moo njëkke te ñaareel bi xaatib ca lam am la joxe kii nag lim am lépp la joxe wax na dëgg de ba pare mu ne alfadlu lil mutaqaddim gis nga de kon ki nangoo jël alalam yi fadl gi nag waxuma ak ngëneel ci saxaaba yi diw ak diw ku gën déedéet ci xadiya bi rek laay waxee wa illaa bu dul loolu abdurahman ibn awf moo gën saad ibn rabia bu dee ci wàllu xam-xam abdurahman ibn awf moo gën saad ibn rabia ci wàllu ngëneel ci saxaaba yi diw ak diw mu ñoo toppalante ku gën kon noonu mu ne ko dulluni ala suuqil madina wan leen ma fan la marché ba nekk nee na ñu daal di koy wan marché ba mu ŋàbbub dàmba dem commencé liggéey luñ la nangoo dimbali nangoo dimbali nangoo dimbali fasal jom wéeru ci kaw nit ñi wóorut baaxut léeg-léeg del bañ bañ lu gis nga nit léeg-léeg day bañ bañ lu waaye nangu chaque jour rek ñu boot la loolu nit du ko nangu déedéet léeg-léeg da ngay bañ bañ lu nit ki bañ bañ lu def def lu effort loolu dafa am solo moom mooy tawakkul ak tawaakul tawaakul mooy doo def benn effort yow bu ñu waxee ngay dama wàkkiilu ci yàlla wàkkiilu woo fenn da ngaa wéeru da ngaa wéeru moo tax bi mu demee ci marché bi commencé di yetu allahu akbar mbokk jullit yi yéen a ngi fàttaliku kan mooy abdourahman ibn awf kenn la ci fukk yi jëkk a tuub kenn la ci fukk yi ñu wax ne yéen da ngeen dem ajjana kenn la ci ponkali magi saxaaba yi bu soobe yàlla ci waa ajjana la bokk mu dem marché yenu dàmbay jaay bu lii jàllee ana ban xeetu métier lañ lay gaaral ci kaw suuf nga di ko doyadal ba nga jàpp ni yow waroo ko def yaay kan yow yaay kan ba waroo sàmm yow yaay kan ba waroo yenu ay saakoy sima yaay kan ba waroo yenu saakoy këriñ wala saakoy ngooñ ñu bari ci ñun mbokk yi bunt bii buñ ci nattee suñu bopp danañ gis ni kër dese nañu feebar ci xol de ay bis yàlla di ko barkeelal su waay commencé lompantiku su waay commencé lompantiku ah yëf yi commencé baax yonent bi daal amul lu dul benn bis rek mu génn dajeeg benn waay mu sol lu rafet am génn gëtt ku koy xeeñ gëtt ak sufra gëtt la gu neex goo xam ni daanaka daal ab séet xam nga séet yi séet yi séet yi am nañ seen yëfi bopp fii ci aad réew moo dem nag réew moo dem aada yi séet yi am nañ seen yëpp bopp yoo xamante nii moom nit ñi xàmmee nañ yi moom yëpp séetam yonent bi xool ko rek gis waa ji soppeeku sikkim baa nga leer nañ ñi mu peñe ko jëbaa nga leer nañ ñi ma nga sol yére yu rafet ba pare di xëy sufra mu ne ko waaw kii du abdourahmana waaye mu ne ko waaw waaw ah waaw mbaa jaam mbaa jaamu jar naa laaj kay barki dim boo njaay nga fi doon yenu ay dàmba tey nga commencé mel ni ab séet mu ne ko ah takk naa soxna kat am na benn mbokk jazaahullahu xayran benn bis dama jàngale xadis ba àggal mu am ci benn dégg-dégg bu am solo moo tax sunu borom yëpp ci la xikmata ma yasha mu ne ma oustaz est ce que loolu duñ ci déggee nit mën naa takk soxna ci jamono yonent bi te fekk du ko yëgal yonent bi ma ne ko waaw waaw loolu lay tekki waa lu xew mu ne ko dañ maa may soxna kon bañ ko koy may yëgu ko parce que bu ko yëgoon du ko laaj ma ne ko wax nga dëgg de kon loolu li muy wane mooy ki jàppoon ni kilifa lépp lu ñuy def lépp dañ ko koy yëgal loolu njuumte la ba tax na kilifa gi léeg-léeg diw dana def nangam yëgaluma ko rek nga bëgg ci amer jàpp ne pourquoi waxuma ko nan ci bàyyi xel de noqta bu am solo muhimma jiddan parce que léeg nit dana la jege def benn affaire ba noppi te waxuloo ko rek nga jaare fa mere ko pourquoi ma waxuma ko ah ah kay du caagi ni lépp lu ñuy def dañ la koo war a wax ndax yonent bee la gën a foor te lii nii daa laaj ñu doog koo wax xëy na nag am na circonstance yu ko waral wa illaa la nga xamoon ca saxaaba yi sax mooy ku ne bala ngaa def nag da ngaa yëgalu yonent sa sana ba pare loolu ñu bàyyi ci xel dars bu am solo la jazaahullahu xayran yonent bi ni ko waaw ah yow kañ nga fi yëf yi soppeeku mu ne ko ah yëf yi kat soppeeku na mu ne ko mbaa jox nga ko can mu ne ko jox naa ko nangami gooro ci or ci misaal tey lam ko jox borom xam ne dañoo xam ne boo ko xayma woon ci alal tey jii daanaka ëpp na cent nangam mille di dem ca jamono jooja te jamono jooja laa wax xam ngeen cent mille jamono jooja bokk nag cent mille tey de yonent yàlla saa salaam daal di koy ñaanal yàlla barkeel ko kon loolu benn mawqif la beneen bi ci lay woon saxaaba yi ñoom waa Ansaar Abi Talha ci waa Ansaar la bokkoon Abi Hurayra nee na benn bis benn waay dafa ñëw ci yonent bi saa salaam di ximbi ximbali bët bët yaa ngi noox lool xam naa mi ngi niroo ku xiif mar xam nga xiif ak mar moom bu amee rek feeñ ci bët yi yonent sa salam ni ko demal nga laaj néeg umu salama ñoom wala sawda ñoom wala aysa ñoom mooy néegi xujuraat yi laaj leen ba xam nee na yonent bi moom a yabal bu ngeen amee luñ mën a joxe foofu lu ñuy lekk rek ñu jox la ko waa ji daal di ñëw ci néegi kii laaj mu ne ko ah wax dëgg yàlla dafi ne gardé woo fi lenn luñ mën a lekk allahu akbar mbokk yi mbokk julit yi néeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ñàkk ñàkk ñàkk ba lenn lu mën a yëkkati jox ko gan ñu ne lii amu ko ah mbokk jullit yi yow mi di jigéen ngay sëy ak koo mën a doon ak sa jëkkër ku mën a doon ndax circonstance yu béy nii sóoraale nga ni bis war naa mën a ñëw mu am nga bëgg bëgg a génn fii dem nof laay mbaa sàngal kam cent franc yoo passé sax amoo ko ndax sóoraale nga loolu ak a jar di sóor àddina nii la de mbokk yi kii soxna yonent bi la muy dara néew kaca des mu ni dara néew fi kaca des mu ba mu wër ci soxna yi koo laaj mu ni kat dara néew fi mbokk yi ndax lii mën naa dajee ndoo nii ñoom ñëpp ñu bokk mbir mi yan yan yan jamono lañ tolloon yan jafe-jafe lañ nekkoon ba kenn ci ñoom amul këmbas tere su mën a joxe kenn ci ñoom yurut suusal bu mën a joxe ah kenn ci ñoom yurut ak araw bu mën a joxe kenn ci ñoom yurut tuuti dugub su mën a génn sax daal di koy wal def ko mburu déedéet kenn yurut dara yonent bi daal di wëlbatiku ci saxaaba yi ni ah waaw yéen gan gii moom lu ngeen xam ci moom kan moo ko mën a jàppale benn waay bu ñuy wax abu talha ni ko yonent bi jox ma gan gi ma yóbbu ko sama kër te yàlla xam na ni bi mu koy yóbbu këram xam na ni xel këram ba wu fa lu tax ñuy wax xam ngeen lu mu ko bàyyi xam ngeen lu mu ko bàyyi njoganalu xale yi moo ne këram reer sax amu fa mu daal di ñëw daal di ni soxna si soxna si mooy kan abu talha soxna si mooy kan umu talha umu talha mooy kan umu talha abu talha umu talha abu talha umu talha mooy kan umu talha kay mooy soxna si ndax abu talha umu talha lay dajal waaye umu talha mooy kan mooy umu sulaym ah lan moo fi xew mu ne ko ah ndijaay dara newu fi de xanaa njogoon na liñ fi tibbaloon xale yi ñu war ko mën a lekk léegi mbaa ñu reeree mu ne ko ah am naa gan gu foor de ca yonent bi laa ko jëlee na sa yeboo ñu seet pexe mu ne ko ndijaay xam nga nu ñuy def dañu koy xaw a guddeel tuuti ñu tàpp tàppal xale yi ñu nelaw bu ñu tàpp tàppalee xadis mi ngi ci buxaari mi ngi ci muslim ñu tàpp tàppal xale yi ba ñu nelaw bu ñu leen tàpp tàppalee man ma dem jekk-jekkal ko def ko ci ndab lu yaatu su may waaxu ba romb lampe bi rek dama koy fay faylu ndax mu lëndëm nga ne ah noo jërul jërul daal rek dañuy tardeel rek fekk xam nga luñ ci jublu woon dañoo bëggoon def benn politique ñu nekk ci lëndëm gi kenn ku nekk ci ñoom di dugal ci bool bi di sàqami sàqami lu subhanallah mbir mi dootoo xamante sax lii lan lay dugg di dugal sa loxo ci bool bi di sàqami sàqami lu wa illaa di tibb ci lekk gi topp su daw xam nga bu ñu lekk lëndëm kenn du gis sa morom maanaam ñu ngi yor seen loxo waaye mi ngi mel ni ku war a dank dank daanaka sa ñaari baaraam ngay càpp rek mos ci sa gémmiñ gi ah yow lekkal lëndëm na de dañ doon bañ a tar fekk ñoom ñoo ko def exprès fay faylu lampe bi gan gi moom di lekk rek nekk yëf yi dañ koo jal ci kanamam abu talha daa yeewu rek ak si ci yonent bi ni ko ah yonent bi sa gan gaagoog mu ni ko daxika allahu laylata sa borom yàlla dimb ci guddi de reetaan na allahu akbar ahlu sunnati wal jamaa ku mel ni ibnu taymiya ci al aqidatu al wasitiya bi muy indi tegtal yi wala ne suñu borom yàlla day reetaan xadis bi bokk na ci yem tegtaloo yàlla day reetaan benn riwaay den daxika allahu benn mu ni ajiba yàlla yéemu na bu mu ci doon rek baax na bu mu ci doon rek bu da bu reetaanee baax na bu yéemoo baax na te it nag day reetaan ndax xam ngeen ni ajana bokk na ci xadis yi ñëw ci ashafaa mooy fa yatajalla lahum almalik yadxaku ilayhim yàlla day feeñu nit ñi di reetaan allahuma la taxrimna ruyataka yawma idin ñoo ngi ñaan borom bi ci màggaayam gi ak yërmandem ju yaatu ji di sukkandiku ci asmaihi alxusna wa sifaatihi alula ak yaakaar ji ñu am ci moom mu bañ a yàkkeeku loola yàlla bu ñu umtu mu ni ko sa borom yàlla reetaan na démb ci guddi min fi'likuma mu ni ko ah mbaa jaamu lu xew moom netti léegul sax moom netti léegul sax yonent bi ni ko xanaa gisoo aaya ji yàlla wàcc ci yéen mu ni ko jan mooy wa yu'thiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaas mufassirun neenañ aaya ji loolu moo tax mu wàcc xadis bi mi ngi ci buxaari mi ngi ci muslim walam yakun hada alkaram wal ithar mawqifan fardiya léegi nag amaan na kenn ci ñun mi ngi naan ah abu talha de kon moom exception la woon ci biir saxaaba yi mu ni déedéet teraanga ji mbaax gi séddante gi nekkuloon ay exception ci ñenn de nee na seen jikko la woon ñoom ñëpp da di mënoo lim ñëpp aka wax dëgg benn misaal mën nga cee jël ay saxaaba yu bare bare bare lii may wax nag ki ko gën a mën a xam mooy ki liir siira est ce que xam ngeen ni jàngalekati siira yi ñiy jàngale siira léeg-léeg ñu juum léeg-léeg ñu jaawale xam nga lu leen ko yóbbee xissa yu nuroo loolu day bit waxuma la sax ñiy jàngale comme ni xayat saxaaba de dama ne ñiy bind téere sax daf leen di dal léeg-léeg nga nettali benn xissa ni diw la fekk da ngaa juum ni diw la loolu kuy def ay waxtaan ci xayat saxaaba booy dégluwaat li ngay def léeg di nga gis ni fii kat war naa ko rectifier ndax xisas yi dañuy nuroo nuroo nuroo ba nga xamante ni fi nga waroon dugal turu diw nga dugal ko turu diw ndax lépp ci li koy waral nuroo saxaaba yi seeni tur wala lépp ci li koy waral mooy xisas yi dañoo nuroo wa illaa boog diw lu mel nii gaar na ko diw lu mel nii gaar na ko moo tax mu ni kon ñoom waa lansaar meloon nañ noonu waaye al muhaajiruun yi abi hurayra nee na waa lansaar bokk na ci seeni melokaani mbaax dañoo ñëw benn bis ci yonent sasalam ni ko yonent bi xam nga luñ bëgg sunu taal tooli tàndarma yi lañ bëgg nga séddale ko ci digg bi ñu ne waa muhaajir ñu séddoo ko affaire bi jeex loolu moo gën ñu nekk fi naan ay diw yaay yóbbu diw diw yaa ànd ak diw léegi kenn ku nekk na ñëw toolam xaaj ko ci digg bi nga séddale ko mu jeex muhaajirun yi féetoo li waa lansaar yi féetewoo lii allahu akbar bi ñu yegsee ndeysaan muhaajirun ñoom it gore lool daal di laa laa laa laa laa laa laa laa laa loolu loolu duñ ko nangu de déet duñ ko nangu xam nga nu ñuy def bàyyi leen rek léegi ñu ànd ak yéen ci coono bi maanaam bu bay jotee bu witti tàndarma jotee bu nangam jotee bu xayma jotee ah li ñu tuddee xers al xars xars mbir mu kéemaane la xars mooy gis nga toolu tàndarma mën naa def junni taat tàndarma léegi naa joxe misaal yu mel nii bu ngeen koy fàttalikoo ci dars yi li koy waral mooy dafa am xeeti xam-xam yoo xam ne da ngay xam ne suñu borom mayee na lu bare bare bari ci kaw suuf ci doomu aadama yi gis nga ki nga xamante ni mooy saa yi bi mooy kii lijjanti mbirum asaka bi day ñëw wër tool bi rek moom nekk ba di wàññi garab yi wàññul garab yi deful dara day ñëw wër tool bi bu wëree tool bi teen xool tàndarma ji ni meññee te def na junniy taat ak lu topp mu ne lii day buñ ko wittee war naa nekk juróomi téeméeri daa taat tàndarma kon asaka di nangam lay doon daan dem yoon allahu akbar loolu amoon na de jamono sa salam ay nit yoo xamante ni jamonoy asaka ñoom loolu mooy seen liggéey dañuy ñëw wër tool bi xool ko rek xayma daal ni fii de war naa génne juróomi téeméeri taati ta daan daan bay tàndarama kon asakaam nangam la daal dem léegi nag mooy wane ni yow ameel nga ñu nangami taat subhanallah kon yu mel noonu da ngay gis ni xeeti xam-xam la comme diw ak diw ñoom ñoo bokk direct fekk xamoo ci dara ak yu mel noonu kon loolu nañ ci bàyyi xel ne suñu borom mayee na lu bare bare bare waalan saar ñoom tuddeewuñ seen bopp waa lansaar waaye yàlla boo leen ko tuddee Ghaylaan ibni Jarir nee na dama wax Anas ibni Maalik ni ko waaw araayta isma al ansaar kuntum tusammuuna bihi am sammaakumullah lansaar moom yéena ko tuddee seen bopp wala boog muhaajiruun ñoo ko tuddee seen bopp wala wala boog yàlla moo leen ko tuddee qaala bal sammaana allah mu ne ko yàlla moo ñu ko tuddee nee na kunna nadxulu ala anas fa yuhaddithuna manaqib al ansar nee dañ daan dugg ci anas mu ñuy waxal mbaax mbaaxi waa ansaar ak seeni daje yiñ daje ci xare yi nee na anas ci boppam day sëgg ci tànkab benn waay ci waa asd ci waa lansaar yi nga xam ne illa mu nekk kenn ci doomi waa lansaar yi wala ci muhaajiroon yi mu daal di koy fóon ñun ko ci lu muy def nii moom borom xam-xam bu mag la saxaaba la ci lu muy def nii mu ne ko ah faala qawmuka kada wa kada wa kada yow saw nit saw yow da ngaa xamul sa sa maam te loolu lu am solo la mbokk yi gis nga nit ki bu amee famille bu mu bokk muy famille bu baax dañ ko war di fàttali yu mel noonu comme niñ leen fàttali dund saxaaba yi yow da ngaa xamul sa maam keroog keroog keroog talxa li mu def ko oxut oh oh yonente bi saa sallam day jeg mu yàgg mu ne ah oxut daal buñ ko tuddee rek tuddal talxa talxa man talxa tubnu ubaydillah yonent bi danaa ko yow day oxod yaa ko moom wala mu jékki-jékki mu yàgg mu ni ah ummu amaara daal moom jigéen ju mën góor a ngoo jigéen joo xam ne fu mu wëlbatiku rek seen ku muy wëccax ndi ko jaasi ji ba yow da ngay yaakaar ni kii sax góor la ndax fit rek ñemeñ ji ca lañ ko jamee woon ab jam-jam fii boo xamante ni doom ji nee na toog na at di faj góom bi wérut ndax jam-jam bi ni mu xóoteeg ni mu mettee te muy jigéen yooyu la ko doon fàttali waaye mbokk yi waa lansaar ku leen bëgg mandarga mu lay wan ni yow mii yàlla bëgg na la ku leen bañ day wane ni yow yàlla bañ na la yent yàlla bi nee na ci xadis boo xam imam ahmad solo na ko buxaari ci taarixam cheikh albani wéral na ko ci saxixul jaamia nee na man ahaba al ansaara ahabahu llah waa lansaar ku leen bëgg yàlla bëgg na la wa man abgada al ansaara abgadahu llah waa lansaar ku leen bañ yàlla bañ na la waxuma sax ku bañ saxaaba ya de ku bañ waalan saar rek azan ku bañ waalan saar rek yàlla bañ na la ku bëgg waalan saar yàlla bëgg na la kon te ñooñu ñenn lañ ci biir saxaaba yi kon saxaaba yi ñoom ñëpp taxul di wax kon mbokk jullit yi waalan saar ñi ngi noonu te it as saxaaba dañuy wax ci waalan saar waaye mbokk jullit yi ñu xam ne saxaaba yi ñoom ñëpp ñoo ñu baax yàlla xam na ni boo nekkee gëstukat boo nekkee gëstukat nga yër ci kàggu yi nga xamante ni ñooy wax ci dund saxaaba ya nga xool saxaaba ya nan doon dundee rek ñoom ala wajhil umum ci anam gën a matale nga xool waalan saar nañu meloon damay wax ni bu dee cib néeg nga nekk xaw tuuti kon da ngay dem ba néeg bi dootoo ci xajati ndax kontaante xam nga nit dana kontaan léeg-léeg ba dootul mën a toog benn place lu waral loolu yin lay wax ci saxaaba yi noonu lañ mel yow da ngay foog ni lii nit mënu nee mel waxoon kay dëgg la ñenn ci borom dañ leen ah ñoom de kenn mënta mel ni ñoom dëgg la kenn mënta mel ni ñoom waaye nag dañ leen a war a roy lu ko waral ñu ne xanaa dañ doon gis yenn sasalam te ñun mënuñu ko gis wax nañ dëgg foofa waaye gis nga bu loolu jàllee ay nit lañ ñu doon góorgóorlu su doon mënuñoo jaar ci seen yoon yàlla duñu wax jaar leen ci seen yoon ulaayika alladina hada allah ñooñu la yàlla gindi kon nag fa bi hudaahu muqtadi fañ jaaroon rek jéem faa jaar bu fekkoon jéem faa jaar amul sens sunu borom du la sant lu amul sens moom tey du la sant lu kenn mënul nag olof yi dañuy wax ni kilifa boo bëggee loo santaane ñu def ko del santaane luñ man dégg ngeen yooyu wolof wolof nee na soo dee kilifa soo bëggee loo santaane ñu defal la ko del santaane luñ man booy santaane luñ man loo santaane ñu def waaye loo yilif yilif nit ñi boo commencé di santaane lu kenn mënut kenn du ko def nga commencé fay nekk naan dégguñu sama ndigal fekk déedéet yaa defut la nga war def yaa déglu lu kenn mënut moo tax yàlla ne laa yukallifu llahu nafsan illa wusa yàlla ne du ma yéen kenn lu mënut moo tax nekk gi mu nekk boroom moom sunu borom subhanahu wa taala lépp da ngay xam dafa tege ci njub ak mbaax ak yërmande ak lu lu jagal doomu aadama ji nga gis ay xeeti mbaax mbaax yuñ lay nettali ci seen dund alan firaad kenn ku ci nekk benn par benn defe naa barki démboo jaay ngeen fi gisoon xisatu julay bii ba ba ko jiitu gisoon ngeen fi dul bi jaadayn ya ko jiitu gisoon ngeen saxaaba yu baax ya nga xool seeni góor nañ doon dundee nga xool seeni jigéen nañ doon muñee ah mbokk jullit yi waxtaan yu mel nii de buñ koy déglu war naa am lu mu def ci ñun jigéen ji nga xam ni néeg ba mu dëkk kenn tabaxewu ko ban jigéen joo xam ni toiture ba ko tiim du zeng du ardoise jigéen joo xam ni lal ba muy tëdd du bajaas du ndës jigéen joo xam ni armoire ba muy defi yéreem ëpp na benn ëpp na ñaar jigéen joo xam ni lam yore ci ay xott daal ëpp na juróomi peer te foo ko fekk mi ngi jàmbat di indi ay problème yu dul jeex ngir jàpp dundu gi dafa naqari billaahi kii gorewut kii gorewut mbaa bu goreet daa jàngu dund saxaaba ya waaye boo ko jàngi ba xool ñoom niñ doon muñee xiit ba maria coono ba yor mbir sax yëkkati ko jox ko sa mbokkum julit sa borom kër dem xare bàyyi la fa ngay fanaan ci kër goo xamante ni su mooy booy kos mu doon jëppit tàkk bu dee insécurité loolu rek mooy insécurité mbokk yi néeg bi li fi nekk lépp ñun tabax yi ñuy def ndax jàpp ne moo am sécurité yow ñoom fan doon dëkk dara ci amul sécurité nga xamante ni tey booy kos mën nga la wel ci ju nga kos rek jaxal mu tàkk mën ngaa xëy taa xanaa taal fukki kër ak juróom ci genn guddi yooyu yëpp muy ay mbir yoo xam ñu ngi ko doon muñ faatu wuñ ñu suul leen ci armée lu dul yóbbaale na ne radiyallahu anhu wa radu an loolu dafay def ci yow mën a muñ day def ci yow nangu xaj yi ñuy xaj yi ñoo ñoom diw yii ñoo ñoom diw yii ñoo ñoom diw ñoom amul woon ci seen biir ñoom koo ci gisoon rek dafa jeexoon ci boromam subhanahu wa taala takk su daan topp mbokkum juritam daaw ko toppee alal tey boo seetloo sunu sëy yi ñuy takk yëpp li ci ëpp lu muy liggéey mag la am gone la mbaa nangam yooyu rek la ñuy seet waaye diina ja déedéet ixtartuhu wala ixtartuha ala barakatillah loolu gëj naa am mu wóor la ni waa ji ay moyam bariwut waaye nga tànn ko ngir jëmmi yàlla ngir diina ji defe naa joxe woon naa leen ko misaal ci dars yi passé keroog bi may wax dund julay bii baa leneen ñu nettali la lenn ci ay mbir yoo xam ne ñenn ci suñ biir ñi ngi koy def da nga yaakaar lii amatu man xam naa waajoo xam ni kam may doomam bëgg nga mu ni waaw bëgg nga mu ñu julli jumaa génn mu ni ko loo am mu ni ko awma dara moom mii maye moo génne 1000 francs ci poosam ni ko téelu mu téye mu ni ko joxaat ma ko mu jox mu ni ko cangaa gi loolu moom ñoom amul amul amul dégg naa gis naa keneen ki moom 2000 francs la la mayee doom ji nee na ma réccu naa ko sax nee na bu démb doon tey nee na 2000 dafa bari 2000 moom ko nettali ci gémmiñ moom mu ne 2000 francs la la ma waa ji jox can moom nettali na ma ko kamba it nettali na ma ko muy ñaari riwaay yoo xam mutawaatir la xoolal ñu mel noonu mbokk yi mu wóor la ni kii lu sérieux lay def te ñi muy yore kat wax dëgg yàlla nekkuñu ay mbalit xuusement ñàpp yu ñuy yu ñuy sànni ji de déedéet waaye dafa bëgg a dund loolu nga xamante ni mooy li muy jàng ak di ko dégg yu mel noonu mbokk yi war nañ ci di xoolaat suñu bopp beneen bi ci des boo seetloo ci wàllu infaq fi sabilillah xoolal yàlla ñu dox ha antum tud'auna tunfiqu fi ñu ngi leen di woo kaay leen def fi sabilillah ku nekk di ngott ngott lu ku nekk di nay naylu yàlla mu ne ku nay sa affaire la wa man yabxal fa innama yabxal an nafsi wallahu alganiyu wa antum alfuqara l'essentiel bu ngeen ko deful ñi koy def a ngi ñëw ñaata ci ñun mbokk yi ñaata ci ñun ñooy gis bunt boo xam ni sa ajana sa xaj na ca ngay nay nay lu ba mu romb la boo boo natte saxaaba yi ci wàllu joxe gis na boo dikkee ci wàllu jaamu yàlla nag mën a jaamu yàlla subhanallah boo dikkee ci wàllu sellal foo ci wax rek da nga naan xadis wala xaraj kon yonente bi saa sallam nee na inna annaasa yuhaajiruna ilaykum wala tuhaajiruna ilayhim yéen waa lansaar nit ñi dañu dañuy gàddaay di ñëw ci yéen waaye yéen moom du ngeen gàddaay dem fenn ndax foofu mooy daarul hijra nee na walladi nafsi bi yadi giñ naa ci ki nga xam ne sama bakkan man muhammad mi ngi ci loxoom laa yuhibbu al ansaar rajulun hatta yalqa allah illa laqiya allah wa huwa yuhibbu amul koo gis muy bëgg waa lansaar mu dëgg ci ñoom mu di leen bëgg di leen bëgg ba muy faatu moom la bëgg waale lu dul faatu na rek moo yëgal ni yàlla bëgg na ko mu ni giñ naa ci yàlla ni amul kenn kuy bañ waa lansaar di leen bañ di leen bañ ba xëñ dajeeg yàlla fekk bañ nga dañul ci sa xol lu dul yàlla bañ na la xadis boobu ahmad solo na ko kadalika ak alimam tabarani wala boog xadis boobu imam muslim ak buxaari solo nañ ko bëgg waa lansaar mandargam ngëm la comme ni ko yéen wax ayatul imaani xubbul ansaar wa ayatul nifaaqi buxdul ansaar saa boo yëgee ni bañ nga waa lansaar wala kenn ci waa lansaar rek yëgal ni ak naafiq mi ngi ci yow saa boo bëggee waa lansaar wala kenn ci ñoom yëgal ni mandarga yi ngëm yàlla mi ngi ci yow yéen ci yàlla laa yubghidul ansaar rajulun yuminu billahi wal yawmil axir nee na ku gëm yàlla ak bis penc doo ko fekk mukk muy bañ waa lansaar kon yii mbokk yi feebar na moom sallallahu alayhi wa sallam ba toog ci kaw minbar bi keroog bi muy toog dañuy wax ndeysaan dafa kaalawu kaala goo xam ne nga xaw a weng sax sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ndeysaan mu ni ee yéen nit ñi nit ñi de ñoom ñëpp dañuy yokk waaye waa lansaar dañuy wàññeeku lu waral loolu parce que waa lansaar mooy ñi fi julli ñi fekkoon muhaajirun mooy ñan ña ñëwoon kon dañuy wàññeeku rek parce que ku ca bokkul lu ñu ñëw rek bokku ci walan sar ku fekkewul ñoom bu ñu faatoo beneen seen muy nit kon dañuy wàññeeku di wàññeeku rek ndax xam ngeen ne paam bokkoon ci walan sar bu faatoo doom doon te doom fekkewul walan sar bokku ca bu ca doom bokkee bu faatoo sa tam du ko fekkee kon mbooloo la muy wàññeeku muy da ngeen wàññeekoo wàññeeku ba mel ni xorom ba mel ni xorom ci cin xorom togg nga nangam togg nangam copp su xorom ngay jël rek def ca ne xorom sa na mu tuutee ci cin li nee na di ngeen wàññeeku ba ci biir nit ñi noonu ngeen di mel waaye képp koo xam ne yàlla dénk na ko mu jiite jullit ñi wala mu nekk kilifa wala mu nekk imaam maa ngi lay dénk nga rafetal jëmale ci waa lansaar te it seeni njuumte na nga leen ko jéggal te it seeni njuumte na nga leen ko jéggal doon na wax usikum bil ansaar xayra maa ngi leen dénk ngeen rafetal jëmale ci waa lansaar ndax ñoom samay nit lañ samay jege ñaare lañ te it nag ñoom kat def nañ la leen war am na ci ñoo xam def nañ ko dem am na ñoo xam ñu ngi fi des ba tey kon daal li ma bëgg wax mbokk yi mooy nu xam ni waa lansaar ci wàllu dëgër fit ci wàllu ñemeñ ci wàllu shahid bal sax nag dañoo bokkoon ci ñu ëpp ñu shahid borom xam-xam yi dañuy wax ni mbooloo mu shahid ba toll ni waa lansaar li ci shahid fii sabilillah néew na foo koy gis imaamul buxaari nee na xataada nee na xamuñ ay nit yoo xam ni shahid nañ ba raw li waa lansaar mel ndax biiru mauna biiru mauna xare la woon ak teen baa tuddoon noonu teen ba yëf yi amoon soixante dix personnes faatu nañ ci waa Lansaar yawmul yamaama soixante dix personnes bi irmaaw na ci jamono yi sasal waaye yawmul yamaama bokku ci woon wa kadalika ci jamonoy Abubakarin Siddiq moo tax Anas ibni Malik nee na ayya yàlla ne xanaa waa Lansaar moom moom moom digg leen beral loxo nag Anas moo doon wax loolu ay yàlla yow de xanaa waa Lansaar digg leen beral loxo ah yawma Uhudin sabiin nee na keroog Uhud ñàkk nañ ci soixante dix biiru mauna ñàkk nañ 70 bisab musaylimatul kazzab ñàkk nañ 70 jisru abi ubayd ñàkk nañ 70 jisru abi ubayd benn xare na woon bu métti boo xam ni jullit ñi dañ doon xeex ak waa perse ak dex dox ci seen diggante léegi nag mu des ñeme ngeen bu ngeen ñemee fekk si lañu ñëwat xam nga ku nekk day jéem a wane ak ñemeent foofu yéefari dañoo nax jullit ñi nax bu métti ndax abi ubayda abi ubayda bokkut abu ubayda abi ubayd bokkut ak abu ubayda ta amir ibn al jarrah ñaar lañ suñ ne abu ubayd du am taa abu ubayda ta day am taa amir ibn al jarrah kii abu ubayd la abu ubayd bi loolu amee julli ñi ni ko ñii dañoo lal ak dëgg sërëx buñ jéggi ñoom buñ ñu ñemee comme ñoom ñoo ñu ëpp effectivement ñoo ëppoon jullit ñi buñ ñu ñemee ñoom nañ joggi ñu xaar leen fii parce que fee ba ba yàlla fii ba yàlla waaye fit weeg ngëm yàlla geeg ñemeñ gi mu ni déedéet man kenn du ma woo ci kaay ñu léew may di diital daal di lañ départ gars yi dañ leen a nax bàyyi leen ba ñu départ ci pont bi ba nekk ci digg pont bi rek gars yi yabal ponkali ñay ak ay nit yoo xam ni kenn xamul nun toll ñu njatt leen ci pont bi ñëpp dañoo daanu ci ndox mi daanaka moo tax ñu naan gisru abi pont abu ubayd nga xamante ni keroog li faatu ci ay julli doon kenn xamul nun toll xeex bu metti la nag xeex bii xeex bu mettee metti la lii ma la ci wax mooy li ci gën a tuuti gis nga boo koy jàng ci histoire bu ñu lay wax keroog jullit ñi faatu gu metti gi ñu faatoog ni ñu labee ci ndox meeg la ca même abi ubayd mii ca la bokk suñu shahid moo tax ñu tuddee ko pooba ñu naan gisru abi ubayd kon yii yëpp ñoom waa Ansaar def nañ ci ay jaloore ñàkk ci ay nit yu bari kon yow sunu borom yërëm leen kon nu ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala yàlla yàlla yërëm waa Ansaar wal muhaajiruun wa jamia as-sahabati ajmain noo ngi ñaan sunu borom li ñu suñu borom digal sunu borom daa tagg waa Ansaar tagg muhaajiruun yi yow nga toog di xoole naan waa man moom lu ma ci am bopp sunu borom ni walladina jaa'u min ba'di ñëw ci seen ginnaaw ñoom seen wàll mooy yaquluuna dañuy wax naan rabbana yow sunu borom igfir lana jéggal nu sunuy bàkkaar wal ixwanina alladina sabaquna bil iman sunu mbokk yi nga xam ne ñooñu jiitu woon ci iman lansaar ak muhaajiruuna jéggal leen waaye wala tajal bul def fii qulubina suñu xol yi xillan benn mbañeel lilladina amanu mbokk yi julit du bañ mbokkum julitam waxuma saxaaba ya de bañ saxaaba ya moom luy àtteem ah day àgg ci kufru yéen a ngi fàttaliku imam Malik imam Malik ci dars bi passé waxoon naa leen ko ah dafa toog ba mu yàgg mu wax ci booxi borom bi subhanahu wa taala ji muy taggee waa Ansaar ak wane ni ñoom kat nii lañ mel moo sahaaba yi nii lañ ah jamal kuffaara nabaatu ah wax a wax a wax ba àggal li yaxiisa bihimul kuffaar ngir yéefari seen xol yi di ci dagg mu ne képp koo xam ne sa xol mi ngi dagg ci saxaaba yi rek xam ne ci yéefari nga bokk kon yow parce que képp koo xam ne ngëm mi ngi ci sa xol rek sa xol dagg ci ci kii mu ne sunu borom tuddee al kuffaar foofu ah day wane kon ñoom dañoo bañ ñi nga xam ñoom ñooy saxaaba ya li yaxiisa bihimul kuffaar yéefari seen xol yi di ci dagg kon képp koo xam sa xol mi ngi dagg ci saxaaba yi rek yégal ni musiba dikkal na la kon nu ngi ñaan suñu borom mu musal nu ci loola te bañ a def benn mbañeel ak een ci suñu xol ci ñu gëm yàlla rabbana innaka raufun rahim wa sallallahu sallam ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain